salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna ami internetu Actubuzz TV amati nañ mbégteeg contentement di leen euh, présenté ay émission yoo xamante ni émission euh, actualité la ak émission yoo xamante ni émission yi ngeen di soxla lay doon tey nag ñëw fi nga xamante ni euh, moom mooy Médina fas yéene jàmmaar la koo xamante ni yaakaar naa kenn dootu ko présenté si réew mi mooy xalifa rapport làmmiñu askan wi.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 xalifa rappeur la ek euh, laamiñu askan wi ek euh, noonu naa feqi man la sum waa ji ñabe muy but buti waaw di but buti fii si Actubuzz waaw di nuyu sénégalais yëpp yu seetaan di la nuyu yow brodo bismillah d'accord amati nañ mbégte ba tey Khalifa rappeur moo euh, noo moo nekk noonu di nuyoo yaakaar na ak ak ay kàllaamam balaa tuuti dañuy ñëw si Khalifa rappeur laamiñu askan yi fan fan la jógee waaw làmmiñu askan wi jógee si porteur de voix ay artistes rappeurs nañ activiste waaw yàgg xeexal suñu réew bugg suñu réew yàgg maanaam xeex injustice yàgg waxal askan wi lu askan wi di wax ci suuf ñun ñu koy wax si kaw ñëpp dégg xam nga la demee ba askan bi tuddee ñun làmmiñu askan wi noonu la demee ñu nekk maanaam di xeexal askan wi waaw di xool maanaam suñu digganteex suñu moroom ak suñu digganteex suñu boroom di def ndax man la sumuwaay lépp te yàlla rek a tax waaw te yàlla rek a tax mooy maanaam ñun ay artistes nañ porteur de voix dañuy rap di joxe ay message di véhiculer ay message xam waaw musique bi nag am na foo xamante ne nii saa waay xoola bu fa àggee mu xaw a tënku gars yi askan bi gars man la sumuwaay mu leen di neex ñuy déglu ay wayu caga kase ay musique u kase ñun gars man la sumuwaay xam ñu ñëw génn di def ay sorti à travers suñuy réseau à à travers site internet yi di wax dëgg bi te yàlla rek a tax day mel ni équivalent wu son rek. waaw équivalent wu maanaam rappeur la équivalent wu port de voix la noonu la demee waaw loolu mooy làmmiñu askan wi lu askan wi di wax ci suuf ñun ñu wax ko ci kaw noonu la demee sénégalais yëpp incha allah di ko déglu message bi di jàll ñu siy gis suñu bopp. ñun ñëpp incha allah bisimilah. ba tey dañuy ñëw si li nga xamante ni mooy actualité di nekk buzz ba tey ñu gisoon nga def benn vidéo boo xamante ni sorti si diggante ki nga xamante ni tey jii moom mooy Léna Léna bu série euh, infidèle ñu gis nga def benn vidéo boo xamante ni vidéo bu xaw a euh, doy waar la est-ce que mën nga ñëw ñëwaatal tuuti si vidéo bi nga def. waaw xam nga vidéo boobu moom du lenn lu dul game game la. public public la. fii saawaay lépp loo taxaw ñoo def public. balaa ngay def publiquement xoolal bu baax xalaataat bu baax balaa ngay def instant yi dégg fii lépp loo fi munti def boo fi defee lu baax saa balaa dara yow lay ñëkk jëriñ conséquences yi si yow lay ñëkk ñëw instant yi dégg waaw boo fi defee lu bon tamit conséquences yi si yow lay ñëkk ñëw noonu kase la quoi te tamit gel boobu di leen a Gueye dafa yab sénégalais yi yàpp diine gi yàpp ay mboqam. yëpp man la sumuwaay réew mi yëpp parce que dafa ñëw gaa man la sumuwaay nangu jouer ay rôle yoo xamante ne nii ay rôle yu bon la yoo xamante nii day yàq suñu ay doom yu jigéen yàq suñuy sœur yàq suñuy jarbaat xam nga loolu suñ ko bàyyi woon mu jàll xëy na amaana gaa man la sumuwaay képp kuy jigéen xëy na na fi jaaree ne kat lii dëgg la te lii moo yoon xam nga ñoom dañuy promouvoir cagatu noonu la demee te askan bi ñëpp xamante nañ ah réew mi fii Sénégal ñëpp xamante nañ te saawaay fii ñëpp ku si nekk am na démb est-ce ngi dégg waaw nit ki ndax même sa démb bu ñaawee jéemal nga tuub nga góorgóorlu xool nooy defee lu baax wala sa démb bu ñaawee sax booy def dara si publiquement na doon lu rafet est-ce ngi dégg noon la demee mais munoo am démb bu ñaaw ñi nga yàgg dëkkal ñëpp ne gayaan man la sumuwaay chaque jour gaay këf la tey bu la paate këfee suba sàmba moo lay këf ginnaaw suba bàcc moo lay këf te fi mu la këfee yóbbu la si auberge yi dugal la fa tëddee la mooy loolu xam lu ma la wax. loolu saa ba tey day day dañuy ñëw si dém boobu noonu maanaam en fait yow ko xamoon da nga xamoon leena bu yàgg wala. dama ni la askan bi Sénégal fii ñu ñëpp xamante est-ce que dégg Sénégal fii ñëpp a xamante gel boobu muy dëkk Nord Foire saa yi nee la ñun fu ne ñuy dugg si temps bi. xamanteex nante yëpp si gox yi fasandigoo fii si biir town bi saa waay est-ce que dégg ñun amuñu sens interdit fenn gal boobu dëmam rafetul waaw bu demee nax gaa man la sumuwaay bu nekkoon jigéen ju baax xëy na Balla Gaye bi mu ko takkee si lay tuub bàyyi yëpp mu sedd dem sëy mais duñu ay sëykat da lañ leen di gis sax ñuy def ay vidéo naan xaw ma ay sama far bi dafa ma mayoon quinze millions xaw ma jën si xawma téléphone tent de million saag de saagu tant millions dem si restaurant bi dépensé fa tant millions ñoom esprit yooyu ñuy dund affaire de caga valeur xam nga cagatu maanaam xëy na caga baar yi nii gaamal la sum waaye ñoom dañoo xeeb cagatu boobu noonu ñoom caga luxe bi nañ gis maanaam xam nga ala jabasoora waaw daf may fay dix millions pour benn guddi ñu tëdd wala sama far bi daf may may cinquante million ñu ànd dem Dubaay ñoom cagatu boobu noonu saa waay moom la ñuy jéem a yàqee suñu suñu jeune fii de loolu la jéem a dugal seen maan moo tax série pervers boobu noonu muy saawaay xawma ma infidèle xaw ma série boobu noonu saawaay xool dafa jot ñu censuré ko Sénégal pour de bon muy si internet beex si télé yeex fépp bu mu fi dawati parce que day yàq man la su mu waay xoolee suñu jeunesse surtout suñuy jigéen da leen di yàq Baye Fall ñii saawaay duñu ay royukaay tekkuñu dara duñu ay nit yu baax xam nga lu ma la wax noonu la demee léegi dañuy ñëw gaa man la su xees nañ. wala xaw xaw nañ am taar waaye lan mooy taar lan mooy xees te duñu dara saawaay fii nit saawaay nëpp noo munti men saawaay xoola bu dara ah balaa dara jikko quoi jikko mooy nit waaw xel bu sell mooy nit melal ni jinne rafetal saawaay mel ni ruubi mel ni jinne saawaay jaaxaluñu non non ñu jaaxal li ngay def si askan bi loolu kese na ñuy xool bu fekkee lu baax la saawaay ñu naw la fonk la ni gel boobu xaw ma Mariama ma bi ñu ko joué loo rôle yooyu noonu dafa bañ. Mariama si tey xool na dignitéem xool na askan bi day rul na lu muy rusee askan bi moo askan bi da koy rus di ko delloo ñu xël jox ko cër mais pas caga yooyu noonu nga xamante nii dañuy ñëw futteeku publiquement ah. ñooñu faalewuñu leen lijjantiwuñu leen sax. adoon gi fa di ñu mer wala saa xoola on s'en fout démb toog naa gaamal la sum ay caga. di ma woo naan xaw ma ay mala mokk diw ay xaw ma ay waroon def nii diw xaw ma di expliquer eh. xam nga mbokki kan leena déggoo lu ma la wax ñun saawaay du ñu ñàkk kersa jigéen ñun xamuñu loolu te saawaay xoola taan bi fii ñëppay def ñun amaana sax dañuy def dañuy jël si booyax lépp mais lépp si sutura kenn xamaluñu dara est-ce ay dégg te duñu mës a saawaay weer suñu bopp wala xama di xaawi sutura doomu aadama mais dafa fekk ni xama lan la public public la moom bu nekkee moom homme public ñëw taxaw publiquement def loo xamante ni saa waay xoolal day yàq suñuy doom yàq suñuy jërbaat ak lépp ah ñun tamit ñu teewal fi askan bi ñëw saa waay xoolal wili pànd ko wan askan bi nii kii du dara dëmmam rafetul te tey moo tax mu mel nii di def yu bon pour yàq askan bi xam nga bu ko defee suñuy doom ak jigéen yëpp nañ xam ni lii mooy conséquence su def lu bon yooyu noonu xam nga te moom instant bi coow bi nii li ko si dugal nii moom gënagul si coow bi de non lan moo si na def fekk moom. moom bu demee ba kenn porté wu ko plainte pour maanaam attentat à la pudeur mooy kon no xoola sant yàlla bu baax mooy kon xoola am na gan di chance quoi est-ce que dégg waaw mais kooku saa waay xoola dafa saaga maanaam sax suñu diine booy fii Sénégal nga fiy joué kii de bàyyi saa waay wute naax suñu papa ji Demba Fall mi ñu proposé quarante cinq pour Prono kii xanaa bi ñu ko fayoon cinq millions sax wala dix millions kon saa mu joué ay bàccante en direct ma ni xanaa bi nga ko fayoon cinq millions wala dix millions mu joué ay bàccante nii en direct. am nga Khalifa nañ ko waxtaanee quoi. parce que dara xaalis kese nañ gëm gëmuñu réew mi gëmuñu seen famille yi gëmuñu dara ay nooy bopp nañ tête vide xam nga lu ma la wax. maanaam yow tey jii. suñu la dégg boobu ñoom ñëpp gaamal la sum waay ñii ay caga nañ ñii ay zigolo nañ Sénégal fii ñun ñëpp xamante nañ. voilà ñii ay caga nañ. ñii ay jigoloo nañ si say neuf. ñi si baax ñi. ñi si baax ñi da leen di proposer ay rôle caga ñu daw génn comme gis nga mooy gel boobu noonu. noonu la demee yéen ñu jaaxal boo leen ko tegulee si yoon saa waay xoolal ñun duñ teg dara si yoon nga def lu la neex ne maa tey ñun ñu def lu ñu neex xoolal ñoo tey man la sum ji fu mu yem na neex bu leen neexee nañ dem yoon lu leen neex nañ def ñun am liberté ak nekk si kaso bi nañ yemale. ça nous fait ni chaud ni froid on s'en fout du ndax dee nañ yamale ça nous fait ni chaud froid on s'en fout bu jeexee jeex na yàlla kese yor suñu wërsëg li ñu war a coob danga nga koy coob suñu heure dee bu jotee saa waay bu askan bi yëpp taxawee di ñaan yàlla naan yàlla na xalifa rapport dund loolu du am damay dee ñu suuli ma sama heure dund bu jotee askan bi yëpp ñu taxawee ne danga may rey dañuy fenn kenn yorul sama dund kenn yorul sama wërsëg kenn yorul sama liberté ñun yàlla kese nañu dund te moom nañ jiital suñu lépp moo tax xoola regaluñu dara jarul ay menaces jarul ay woote naan man la kii si famille diw laa bokk wen bëggee dem yoon ngeen dem yoon eh moo loolu fii caga bu fi génn publiquement dinañ dénoncer saa waay xoola wan askan bi ni caga bu bon nga man la sumu waa ji fu mu na neex. fëpp laay dugg aw ma sens interdit fenn. maanaam yow da koo gis da koo gis say bët wala. waa waa Medina noonu laa xamee saa waay waa Nord waa Sacré-Cœur Nord Foire dëkkoon naa fa te ba léegi nii maa ngi fay dem Sacré-Cœur Sicap noonu Fass Colobane dëkk naa fa maintenant fii nax laa juddoo te instant bi fii laa dëkk nee la man aw ma sens interdit fenn town man fu ne laay dugg si town bi. xamanteex nit yi xamanteex nante yi. lu ma bëgg nga leeral ma ko leeraloo ma ko. xam nañ yaay booy yëpp loolu nga bëgg ah, xam nañ ko xam nañ ko xam nañ ni saa xoola. balaa mu siiw sax man la sumu waay xamoon nañ ko waaw mais pas xamante maanaam miinante ñu am ay relation non non mais dañ ko xam nii xam ban genre wóo la ban genre gel la ñun yaay booy yëpp xam nañ leen saa waay pour muy clair est-ce que dégg mais yaay booy nañ góorgóorlu fii ren di jéggi ren di jéggi nañuy donde nan tey xamante nañ de voilà yow saa yow booy tax jabar di nga takk ren di jéggi xaa nga nekk ngaaxa mais booy tax jabar da ngay jéem a xool man la sum yaay booy bu toog pooju ndayam waaw mu jaral la nga def si ay millions et cetera et cetera mooy loolu mais boo nekkee nàmp wala nga nekk ren di jéggi moom saa waay si ngay sax bu la yàlla mayee chance nag ba nga am jëkkër nga war a góorgóorlu dem sëy te yàlla tax lem sa gen mais genre cagayee dañuy am jëkkër dem gaan di sàgganee sëy bi affaire yooyu noonu ñëwaat taxaw taxaw naan ñu yàq jeunesse bi di ngeen ko musa may ñu leen ko musa nangul noonu la demee te xam nañ lu bëri si réew mi fii mais du ñu mës a génn di weer kenn jamais de la vie xanaa ku weer boppam ku weer boppam bëgg yàq saawaay suñuy doom ak suñu jeunesse ñu génn weer la man am naa démb man damay def essien dëgg voilà taan mi ñëpp xamante nañ ñi ma xam-xam nañ ma mais saawaay su ma fi defee saa waay tojaange wala dara xëy na amaana sax askan wi dina wax si leneen yeneen làmmiñ weeje ma man noonu la demee te su boobaa askan bi ngi siy gis seen bopp mais pas fenkat yu bees yi nga xamante góor jigéen ñi ñoo leen di ngemb ñuy génn naan dañuy jéem a saltal sama der di fen ñooñu askan bi sax duñu leen déglu xam nañu ay fenkat nañ man képp ku wax sama der loo xamante ni dëgg la damay d'accord xam ni lii dëgg la parce que man damay assumer man ragaluma mais lu ma deful moom boo ma koy tuumaal di ma ko sosal moom saa xoola yàlla sax moo lay weer noonu la demee parce que ñun dëgg bi xoola ni ñuy dund noonu la demee waaw